maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di gërëm maa ngi leen di sant di ko tàmbalee ci waa cité cité ouvrière waa Balabé waa Sampaté waa Balabé 2 wa Sampaté 2 ah waa jàmm gën kenn kenn amul seen fay waa Buntu dépôt ah waa Ersan Darou salam wa Silma wa Seras wa sitalami ah waa Kër Massamba Gueye wa sangor ah wa Fayu wa parcel wa Ndioung wa Bagdad wa lewna wa Cité Dabakh wa Mbambara wa musante wa keur seigne Ablaye wa Guy Sombel wa Cité Senghor ah kontaan waa Bata ana ñu ñoo ngi nii ñooy seet sama booy yi xanaa ndeysaan sa booy yaa ñu morom gën dañoo fi ne <laughs> amu leen morom ah di gërëm responsable yëpp su ma leen limee damay juum di nuyu citoyen vice président Ardo Fall mi ngi nii dafa tardé moom ma waroon def discours mooy numéro 2 di parti citoyen Ardo maa ngi lay gërëm bu baax di sant di gërëm responsable yi fi nekk yëpp jógee ci région yi kenn par kenn ah bu ma leen limee du ma fi jóg di gërëm bu baax sunu maire di gërëm bu baax sama sama yaay eh, tànkoddu sama yaay Ngone di gërëm maire Ndeyu Mbow ah maire koñ ba yëpp ma maire Fatou Diop gis naa ñëpp kontaan naa alaaj Diour Thiaw maa ngi koy gërëm bu baax di gërëm daayira yi fi yi fi teew ah ak ah, tàggkatu yonent bi fi teew di gërëm aussi tous les jeunes Kader wax seen tous les jeunes Bamba Gumbala wax seen tur di gërëm bu baax Bintu Mbaay di suma goro ah, ak Hawa Koyate di gërëm ñoom Madi fi euh, fayu bopp yëpp ak aram suma soxna di Pap Pape Gueye nga xam ni mooy suma bras droit fii ci Thiès Mama les assistantes et tous les responsables ñoom Mamadou Ba fàttewu fàttewu ma leen ah su ma limee jum ah wa jàmm gën bayloo ñom maam Mor kenn mu leen fay vraiment Fatou Samb wa lay gërem ah ku mengo ngok ngoog maa sama rakal Cheikh Fall ndaysan kon tay ñepp ñew nañu gañe nañu on a gagné ma jee jërëjëf Marcel <laughs> wow waaw leena leena ñu ma leen ay euh, madame kan Ibba aw ma seen fay kontaan naa trop waaw madame ah Fatou Samb tudd ko madame Fatou waaw monsieur Tra ci moom doo futte ci <laughs> organisation xam nañ ne bu ñu limee dañ tuum moom waaw loolu moom moo wér ah ñoom Bintu kër suñu Ablaye Aïda Maroon ah Matar maam Boutou sama doom waaw Tall maa lay gërëm bu baax Pape Ah, wa Cité sangor ñoom mama aw ma sen fay waa kër Doudou Gueye ñangi aw ma sen fay yalla na yalla fay wa wa keur du Gueye ñang yëpp suñu frère lañu amuñu sen fay wa sen papa ak suñu papa la won yeen suñu yef sen sen yef la grand bay gay ñoom mën nak ñep ak ngi leen yi wa waaw di nuyu waa Cité Lamine pap Ali Kane waa Malamine sangor ma ngi leen di nuyu bu bu baax wa keur ma samba gay Gueye mëntu leen sax

waaw responsable yi ah Mami Fall soxna waaw nday mbëti moo dëkk fi ci kii ci Chine waaw Assou Gueye ak Lisa Ibou Gueye ah donc waa Diamaguène yëpp responsable Diamaguène yëpp aw ma seen fay waaw di gërëm nag waa Silma bu baax a baax Silma moom wàcc na waaw waa talal gi waaw Serigne Fall madame Fall Ami Diop Abdou Fati ñoo fi ne <laughs> wa mère ayda jàmm gën eh, Sali aw ma sen fay Adja ak madame gey cité ouvrière madame Diop cité ouvrière gis nañ sa taxaway Adama Kanté Fane. Adama Kanté. wa dama bëggoon tamit suñu partenaires yi. waaw ñii ñooy waa suñu responsable Alsar aussi mi ngi si kaw Mbaye. waaw mi ngi ni Lamine Diop ak Siré gangé ñi dañoo bokk liste synergie ñëw jàppale ñu ñu def coalition. représentant waaw Alsar Pout ñu lay bax waa Alsar gis nañ ñu président Racine nañu. waa waa waa Racine si yep, ñu ngi taxaw Lamine ak sidé taxaw bi sama au sort du 23 ñu war gagné. ma ko ci ñun

kontaan ci yow. ak Baye comédien. Baye Adama. Baye Ganna comédien. Baye Ganna. xam naa ko bu baax mooy ànd ak Abba la. waaw waaw kay xam naa ko. Ah, mu di aussi jaaj Caacoo. Caacoo soirée bi. incha allah dégg nañu ko bu baax. saa ñu ci jàpp bu waaw jàmmagal suñu yite waaw ah. tax na biir bu neex. waa Bada amu leen waa Bada ah, ana ñu. ñoo yor sécurité bi

Malamine Senghor tudd na ko. waaye it defaraat économie dëkk bi parce que dëkk bi dafa commencé rab xale yi amuñu liggéey ñi ngi taxawal am seen i yooyu yëpp incha allah la ñu joxee fi daañu taxaw jàppale euh, xale yi. daañu dimbali aussi euh, jigéen ñi ak seen orgi seen avec yeeg seen groupement féminin yi daañu dimbali ñi nga xamante ni bi ay veuve lañu seen jëkkër dafa génn àdduna. daañu dimbale aussi ñi nga xam ne ay bàyyi lañu ay orphelins dimbale aussi li nga wax ay femmes divorcées parce que ñoom ñu sonn nañu ndax jigéen ñi nga xamante ni bi amatuñu borom kër ñoo yor seen bopp balaa ñu gone maa ngi lay nuyu waaw aw ma euh, suñ ko toppee duñu fu jógee meeting bi ana tête de liste proportionnelle di Fatou Sow njaay moom it kenn am fay dafa dem ana Fatou Sow waaw ah, ah, waaw kay Fatou Sow dafa mérité gi def ko tête de liste du chance mérite la depuis 2007 dafa gunge magam muy Moustapha Diagne kon bu ñu toogee tollee fii war dañ ko war dañ ko gërëm war dañ ko sant war dañ ko njukkal kon Fatou Sow vraiment waxoon naa la gaye nañu ah waaw ma wax naa leen am na turam am na wallaay waa Malim Senghor am leen fay am leen fay eh kàggu law beeg gi waay yaa jëf kàggu. dama màgget waaw maa bu baax aussi man imam la ci ah imam waaw imam imam imam dan maa ngi imam di gërëm aussi délégué quartier yi fi teew di gërëm Mortale Bey Mortale Diop waa bureau ba gis naa leen Pape Kouyaté maa ngi gërëm bu baax ah di gërëm. ñi nga xamante ne bii yëpp sama grand grand koñ ba gis naa leen yéen ñëpp waaw sama grand koñ bi waaw Omar Faye mon frère wala sama seex Omar ama morom waaye waaw